dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyantoo li raam sañak ba la jëm te bu fa amee kër du baax insécurité alimentaire bu garaaw bu doy war moo nar am ci réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci waa FAO ak waa programme alimentaire mondial ak waa UNICEF ba sa organisation mondiale de la santé nee na askan wi nga xam ne ñoo dëkk Sénégal rawatina kilifa yi bay boo ñu jël seeni matukaay xam ne insécurité alimentaire bu doy war dina am ci réewum Sénégal yéen kaay gii di Walf Fadjri daan nañ xëy ci gagel yi maanaam kéwal yi nga xamante ni fan yi coow li ne na cobbee ci réew mi bëri na ay ministre yoo xamante ni ndeke ñoo ngi woon yore ci kéwal yi yéen kaay gi dikk na ci trafic beek luq njuur gi nga xam ne am na ci journal bi nee na pays du yi benn kéwal bu nekk mën nañu koo jaay lu toll si ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar maanaam ci ay millions yéen kaay gii di 24 heures xëy yóbbu ñu diwaanu Ndengler nee na coow li nga xam ne moo fa wulee ñaay dox diggante promoteur bii di Babacar Ngom ak askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ca Ndengler ba léegi nii njaw ma ngay wéy di desu xambin ministre bi nga xam ne moom lañ dénk kaaraangi réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ak Abdou Karim Fofana doxoon na nañ dem ngir nag am médiation waaye nag dara sottiwul ndax promoteur bii di Babacar Ngom moom dafa wax askan wi dëkk ndeng leer na leen mën naa leen a jox soixante hectares ngir ngeen bay si waaye nag bu nawet bi jeexee da ngeen ma koy delloo askan wi nga xam ne ñoo dëkk ndeng leer bi Babacar waxee loolu ba daaneel dañoo mer ba maara day taali daal di wax ne ana ñoom seen suuf nañ leen leen si mën a daggalee soixante hectares di wax ne dañu leen koy abal ñoom nee nañu sax danañu am beneen manifestation boo xam ne danañu ko def yéen a kaay gi xëy fekk fa waa général daal wax ne bëri na ay manquement yoo xam ne am na ci liggéeyu taskatu xabaar yi daan nañuy wax tamit ne dina am ay coppite yoo xam ne maanaam danañu ko ci daal di indi ci ak xóotal yéen a kaay ko di Sud Quotidien xëy ci coowul suuf li nga xamante ni jamono ji moo wulee ñaay ci Sénégal muy dakaar di Saint-Louis di Thiès di Kolda di Sédhiou di Ziguinchor di Matam di Tamba fii fépp maanaam askan wa nga xam ne ñoo fa yeewoo saa sunu xëyee ñoo ngi ñaxtu di wax ne seen suuf dañu ko daal di aakimoo yéen a kaay gii di Vox Populi fekk fa la mu wax ci lu soxal wàllum déclaration patrimoine nga xam ne njiitu réew mi di président wax ay ministre am ngir nag daal di kay Pastef moom li mu gis mooy mbir mi ay tuur lëndëm la ak i tappale yéen kay gii de la Tribune xëy ci ñàkkug ndox gi nga xam ne mooy jaaba jonge ci réew kenn saafara ko ñoom nag li ñu jàpp mooy jamono ji ñi jiite réew mi ñoo ngi seetaan askan wi yéen kay gi xëy di wax collectif ñoo lànk ak aar la ñu bokk ñoom doon nañu amal manifestation ni ki démb ci àjuma ji waaye nag mbir mi dañu see gis ak lajjite ñoom Guy mari Sagna joxor bi baaraamu tuuma Aly Ngouille ak préfet bu ndakaaru nee na ñu ñoom ñoo tax seen manifestation bi maanaam nit ñi ñëwuñu wax nañu ci lu soxal wàllum bradage foncier bi suuf si nga xam ne maanaam ñoo ngi koy caxte-caxte ak giraawal yeeg njombe yeeg léexóor yi nga xam ne ñu ñu dénk réew mi ñoom jàpp nañ ne ñoo koy def ci réew mi ni ki démb ci manifestation bi Guy Marius Sagna li mu xamal policiers yi maanaam bu leen ñu saaga bu leen ñu yuuxu bu leen ñu rey même sax su dee da ngeen def seenub liggéey yéen i kaay gi de la sam ñu xëy fekk fa Cheikh Seck mi nga xam ne mooy coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé li mu xam ne nee na wàllum santé secteur bi dañu ko politiser maanaam dañu ko yàq politique bi nga xam ne dugal nañ ko ci lu jëm ci wàllum santé njombe la waaye nag danañu amal am marche ñeenti fan ci weeru août ndax secteur bii di secteur santé la bu am solo kon duñu bàyyi ñenn di ko yàq yéen kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Pape Faye mi nga xam ne ab comédien artiste la Pape Faye mi nga xam ne jamono ji su àddoo ñëpp di ko bàyyi xel daan wax ay jaar-jaaram ci entretien bu yaatu boo xamante ni séq na ko ak waa réew mi quotidien daan nay wax ne géréw fa la juddu yaroo Popenguine wax na fi mu jàngee yàgg wax na ci lu jëm ci jaar bi nga xam ne jaar na ko ci centre culturel français wax na ci théâtre jamonoy tey ji wax na ci comédien yiy def théâtre ak comédien yi nekk ci série yi wax na ne du benn wax na ci lu soxal métier maître de cérémonie wax na ci jafe-jafe yi nga xamante ni dund na ko ma ngi ci biir journal bi yéen kaay gi xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu diwaanu Mali ak crise politique bi nga xam ne moo fay jaba jonge tax na waa CEDEAO maanaam daal di fa yóbbu ab mission waaye nag ñooñee war nañoo daje ak nag ñi nga xam ne ñooy mouvement de contestation yi ñi nga xam ne maanaam ñooy ñaxtu bëgg Ibrahima Boubacar Keïta jóge ci réew mi danañu daje ak imam Dicko journal bi nee na manifestation yi nga xam ne ni ki démb ñoom bëggoon nañu koo amal dañu ko mujj daal di annulé ba pare nag organiser ay jàngum kaamila ngir nag ñi nga xam ne ñoo faatu fan yi ñu génn ci manifestation yi ñu jot a amal yéen kay gi di estat ñu xëy fekk fa Ismaïla Sarr la mu xam ne nee na amul lenn loo xamante ni réccu na ko ci signé gi nga xam ne signé na ko ci club bii di Watford yéen kay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Lac de Guiers numéro 2 la mu xam ne nee na sama combat bi nga xam ne ñoo ngi koy laam-laamee man ak Tapha Tine bis bu nangoo combat bi bu ñu jàkkaarloo dinañu xeex ba dugg bu advocal